aballaahu anaasu ilaa xayri seyxina imaamihuma misaak Ahmad Tijaani wér rek lañ koy ñaanal ñes gumba Abdoulaye ci waañu sëriñ bi waañu sëriñ bi waañu maam si Amar fi lay nekk noonu eh, ñu ngi si préparation añ bi xam naa ko ñu jël benn maire rek si maire koñ bi nga xamante ni képp ku min siyaare bi rek wala ku min kër gi sa laay wax da nga min seen kanam te bokk si ñi nga xam ne dañuy ñëw pour mu ñor ñu lekk bu ñëwee li nit ñi war lekk ñoom ñoo koy togg kon da ngay taal mi ko si lu gàtt rek ndax julli jumaa mi waaye jot bañ sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant Baye Papa lool mu yàgg fi te wér faat kase la faatu maar ñu koy ñaanal yàgg fi loolu te yéex a dëkk si rek la ñuy jooy ci moom xamal nañu diine xamal nañu lislaam xamal nañu lépp boo soxlaa moo ci gën boo jaaxlee moo ci gën ñes yal na ko teewe ay déwéni déwén yal na ko teewe ay déwén ñes yàgg rek lañ koy ñaanal. Adja Kumba si kii jigéen ñi Papa Niass la mooy suma mag mooy sama xalifa moo daraame yal na yàlla yokk seeni fan ak mboole mu jullit ndax ragal péete day xañ a wërsëg bàyyi papa suma bàyyi ma ko dénk moog Dramé male papa ñoom Ousmane hmm? lii muy def tax na jalañ ñëpp ànd nañ ku jàngutoon jàng nga suñ daara jaa ngi nii Adja Ndeye Cissé jiite ñu ngi jàng lépp lu war ci daara ji ñu ngi koy def mu yal na yàlla yokk seeni fan yal na leen barke alxuraan dal ci yal nañ ko yàgg a teewe ci barke Cheikhu Tidiane yéen ñi taxawit ci naaj wi ak sama doom ji di Cheikh tijaan yal na leen barke Cheikh na Ahmed Tidiane Sarif wallu ci barke salaatul fatiha kontaan naa lool kontaan ci ñoom Fatou mu ndaw sama jéeg yëpp bu la doon laaj si lu gàtt rek nooy digal jigéen ñi nga xamante ñu ngi si waañ bi rawatina ñi nga xam ne ay soxna lañ nekk si kër gi waaw li ma leen di digal ku ne na nga góorgóorlu nit ki amoo lu mooy sa borom kër amoo lu mooy sa dëkkandoo jaamu yàlla lii ñuy def nii kenn utu ci dërëm yàllaa tax ñuy def ak yonent bi ak Cheikhu Tidiane leen Cheikhu Tidiane fayal boppam jeeg gi ci kër gi yal na leen yàlla barkeel njaboot gi yal nan barke toog ba awu seeni baay ci barke Cheikhu Tidiane Serif ci barke Salatul Fatiha. jërëjëf maire. waaw baa ngi kon Cheikh Tidiane ñu déplacé tuuti rek ba xam nañ gisaa koo xamante ni ah kii di daam. soldat yi soldat yi ñu am nañ solo wan ma gannaaw. wan ma gannaaw see jëlal lii waaw lii lan la soldaaru El Hadj Papa Cheikh Omar waaw ah, man maa ngi tudd Papa Niass Sarr dëkk fan Taïba Ndioufène Taïba Ndioufène mhm. Mhm. waaw dëkk Taïba Ndioufène mhm. ñun nag ñu nekk ñoo xamante ni ay soldaaru El Hadj Papa Cheikh Omar leen waaw ci lépp loo xamante ni ñu ngi ci ñu ngi ciy woote rek ñoo ngi ci waaw lépp loo xam ne ñu ngi ci woote ñu ngi ci mu nekk bis boo xamante ne muy bis sant yàlla ñu ci dolleeku ñu ci sant yàlla bu baax a baax ndax ñu ngi ciy gis suñu bopp daal ndax ak sant yàlla ak ak dolleeku dong ciy topp wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax di gërëm waaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi kontaan bu baax bis bi yàlla da ko da ci def xéwal chaque année rek ñuy muy ñuy gën di am lu. Euh, yéen góor ñi gannaaw fii jigéen ñi ñooy togg yéen góor ñi fii lan mooy seen liggéey si waañ bi. waaw waañ wi nag dañ fay nekk ak jigéen ñi di jàppalante. Hmm. waaw jigéen ña xam nga ñoom ñoo nekk si cin yi ay ñun ñoo leen di sebetil ak di leen defaral luñ luñ laaj luñ soxla ñu jàppale leen ci. Mhm. waaw man daal li ma gis en tant que taalibe nga ñëw ci kër sëriñ li ma xam jóg fi teeku takku liggéey waaw ñaqal sëriñ bi nekk soldaar waaw mais nag taalibe su demee ba nga xamante ni day day ñëw si kër sëriñam wara liggéey di toog di utam ak naflaay daf fi euh, sonale boppam rek mais du fi jëlee dara kër sëriñ daal boo fi ñëwee da ngay ñaq fas yéenee ñaq jëriñu ñun nag loolu moo ñu fi andi ndax mooy suñu suñu rootukaay fii leen di ñëw suñ fi jógee di yëg suñ bopp ci ak dooleeku waaw si leen yëg suñ bopp bu baax a baax ndax moo tax bis bi bu ñu newoon fii bu nekkoon fii ba extérieur sax yàlla dogal ñu mën ko dañuy dagg bee di ñëw di ko fekkee si incha allah loolu leen am mébét ci bis bi waaw. Shamsu TV mi ngi baax tur bi. Alaaji Faati Diop. Faati Diop dëkk fan. Taïba Ndioufène. Ah, da nga ñëwoon ziar bi waaw maa ñëwoon si sama ziar Toma bi waaw. kon kon sëñ bi sa tooma la. waaw mooy sama tooma waaw. Ah. Mhm. yaa ngi si waañ bi de. waaw maa ngi si waañ bi. yaa jiite waañ bi wala. waaw waañ bi de xam naa ne moom hmm. ndaw laa ci rek waaye nag xam naa ñu ma jiite de dama ne ko ku am kudd dool ak. Hmm. maa gisal samay samay sët. Hmm. topp si seen kaw rek. ak di leen encouragé. El Hadj Abdoulaye Niass yoo xam ne nekk suñu sëriñ lépp luñ ci defu rek dañ koo amut parce que tey buñ géejaloon ci xaalis lépp dañ koy def dafa nga am neen xol bi am neen yéene bi parce que la mi saf ko ka macca xam ñun ñun kër El Hadj Abdoulaye Niass yoo xam leen xam waaw loolu daal moom wax yàlla moom moom moo ne si moo ne suñ bëgg-bëgg moo ne si suñ suñ waaw. la la doon wax pour nga ñaax sa mbokku taalibe yi loo leen di ñaax. waaw dama leen di ñaax ñu gën a xam pas-pas rek parce que ragal piite day xañee wërsëg nit nekk xam na loo bëgg waaye nag li nga xam ne yaa sa bopp da nga koy téyeel sa bopp bu ko baxee bu ko caaxaanee nag parce que dañoo fekk suñu bàyyi nekk ci ñu ba bayal sama tooma tool di ko lëggéeyal di ko xitmaal a ah, ba yàlla xatte mag ñu jiitu ñu ñu des fi nag wax dëgg yàlla bon ñu ne nag war na mën a topp suñu njaxtal bàyyi yooyu te di ko sàmm nag na parce que kóllëre moom la ñu mujj dénk ci ak ci ak mujjam kon nag loolu wax yàlla loolu euh, dundal suñ suñ dund ñun waaw loolu daal wax yàlla moo nekk suñu xalaat moo nekk suñu bëgg-bëgg waaw. sëñ Papa Dioum Papa Dioum ñu gën koo xam ci Mangone. Mangone Dioum. dañoo nekk euh, ñoo xamante ni ay taalibe lañ te taalibe fépp fu mu nekk dafay dagaane njariñ te maanaam dañoo nekk dëkkandoo yoo xam ne dëkkandoo yu neex a dëkk lañ dëkkandoo bi ci gën mooy bi lay teg ci yoonu siraatal mustaqim ndax yoonu siraatal mustaqim jafe na ndax lii ñu nekk nii dañu cee nàmpatal tàggat ñu ci ba tey loolu mën a nekk ci sunu xol yi julit moo amul frontière tarixa du dara lu boole ay doomu aadama la rek moo tax euh, ca ñun képp ku ñu xamante mbi nii sëriñ bi wax na ni bi mu nekkee si géej gi sëriñ Touba di ñaan ñaanalul murit ñaanalul tijaan ñaanalu kenn dani er am jami alwara kon moo la muslim sax njanaaw yi naaw kon boo gisee ñu bokk nekk si koñ bi ñun ñëpp ñoom ñu ñuy fekk si ba tax bis bi am kenn gënu leen ndax bu leen neexee ñu bu leen ñu yamale ko seen bopp waaye mënuñ ko yemale seen bopp ndax yàllaa def ñoom ñëpp ñu large ouverte baay papa mi nga xam mooy sunu xalifa di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi ak euh, baay nooroog njaboot gi ñëpp taxawaay bu rafet lañ taxaw ci koñ bi ndax ay julit lañ sunuy sëriñ lañ lu ñu xew la ñoo ciy njëkk ñoo fay mujj lu baax ñoom la duñ fekk lu bon dañu saxa ci yoonu siraata mutaxim waaw xam nga kenn ku ne ak sa tolluwaay dafa am ñoo xam ni yëgal moo leen di tax a ñëw dafa am ñoo xamante ne nii maanaam dañoo am principe bu lépp lu ñu gis lu baax ñu jëm cee bokk loolu mooy active bi man nag yàllaa ma dimbali ba man duma ma xaar ci lu baax ñu ma ci woo man moom fasuma ko yéene ñaanu ma ko yàlla ndax loo xamante ni yoon siraata mustaqim la ku ciy toog di xaar ñu lay woo damaa yaakaar ne amoo xam-xam wala amoo dara aqiqa waaw looloo tax parce que képp ku koy def it na dafa am lu tax nga koy def rek waaye ñi woote moom yamalewuñ ay nit mënuñoo tëb ñu wër àdduna bépp ni fépp ñëpp tey kenn ku ne nañ dugg sa kër waaye dafa am loo xam ko wootee ci quartier ñëpp bokk ko kenn wër ci xaar ñu lay woo wala dara. ñu lay jaajëfal jërëjëf. aballahu anasu ila gayri seyxina ثاني